yàlla sàkk na jën yi ci ndox ak picc yi naaw ci jaww ji yàlla sàkk na rab yépp noonu yàlla sàkk nit ku njëkk ki mu tudd aadama noonu yàlla sàkk awa mu may ko aadama mu doon jabaram aadama woowe ko awa yàlla barkeel aadama ak awa ne leen ñu njabootoo feesal suuf si yàlla amoon na bég lool ci li mu leen sàkku gis ne lépp baax lool